vendredi 3 juin 2022 weer bi ñu génn yàggul Macky Sall assemblée nationale benn loi bu en procédure d'urgence loi en procédure d'urgence moy duñu ñu yëgal kenn du loi bi assemblée nationale député yi voté ko té du débat sénégalais yi mëna xam li xew. loi bi moy permettre ay entreprises bitim réew Sénégal ay produits yi ñi woy OGM organisme génétiquement modifié lolu li muy tekki moy Sénégal di produire les gay légumes ak fruits artificiels manam da gis fruits ak légumes mu taaru lol ndekete ci quelques jours lañ ko bay mu gaaw meññi ak ay engrais yo xamanteni ni produits chimiques yu yéeme lañ ko defaree produits yo xamni ci quelques jours mu jox la mbay mu rafet képp ku ko seen bëgg consommer mais fruits ak légumes yooyee du am ay meññeenteef njariñ bi mu waroon am sa yaram jox vitamines vitamine du kam li lañuy woy OGM organisme génétiquement modifié Macky Sall mooy Abdoukarim Abdou Sall assemblée nationale ñu voté en procédure d'urgence le vendredi 3 juin 2022 ngir mu loi 2009-27 bi nguuru maître Wade voté won té muy ay e genre produit yooyu noonu ñu koy Sénégal té li ci grave ak OGM yi moy fruits ak légumes lañ ni dalay jox feebar yu ci mel ni problème mu rein donc xaar leen fii quelques années sénégalais yu bëree bëri dañuy dem di defi dialyse régulièrement bu ñu bëggee woy di dund. OGM dafay dem ba yàq sa fois res bi nekk ci yaramu doomi aadama di ko permettre lu mu lekk mën koo digérer facilement te itam di renforcer yeneen cër yi OGM dafay yàq loolu lépp di jur yeneen jàngoro chronique yoo xam ni doomi aadama bi dootul wér giiru dundam beneen bi mooy. produit mbay yooyu noonu suñ ko jëfëndiko da fay dem ba souf ci da fay yàqu ndax produit chimique yi ñu koy da fay détruire environnement bi détruire complètement bolim suñu souf yu bax nee naa leen dañ koy wat encore une fois bésu vendredi 3 juin 2022 bi ñu wessu la Macky Sall dugal assemblée nationale projet de loi bii ngir Sénégal tàmbali utiliser genre produit yu bon yi parce que tubaab bi ñoko imposer imposé loi bi dañ ko voté en procédure d'urgence et sans débat manam neub ko sénégalais yi te itam kenn bañ ko waxtané assemblée nationale ngir mu baña jëm kaw. lan moo ñu ci suñu wàllu gi yaram lan mooy yoot suñu alam lan mooy yoti tam suñu nekkin ndax dafa melni ni ba tey sénégalais yi mesuré wuñu danger bi nekk ci loi bi nga xamni tay bo démé Europe ak les États-Unis dafa am ñu créer ay mouvement sampay kurel di defay campagne di organiser manifestation ndax li ñuy OGM mi ngi par benn ñu taxaw ngir mu dakk léegi nag la yeneen réew yi di bañ ba koy xeex moom la bëgg Sénégal imposer ko Macky Sall voté nañu loi ba 3 juin 2022 ñaari weer ci ginnaaw ba noppi di ko cela veut dire que une pexe jubul. tay ci danger wu loi bobé lañuy taxaw ci numu gëna yaato ak ci at yi di ñëw nak la sénégal di battre record dëkk bi ëpp doomi aadama yu fébar manam kenn du wër ak nak lañu nara a ñàkkee suñu suuf yu bax yépp ndax produit yi ñuy dippee OGM dañuy taxaw d'abord ci lan moy OGM lu muy tekki ak naka lay fonctionner OGM signifie organisme génétiquement modifié umpalewu leen ni mbooleem le yàlla bind doomi aadama rabu àll luy naaw luy ba ci dafa am nu leen yàlla moo ñaalee maanaam kat gi nii lay mel Fruits ak légumes, bi lay bi matériel génétique mooy lii yàlla programme ci mboolem lu mu sàkk muy lu naturel lu dara raxul léegi nag ci ñooñee yàlla sàkk daf ci am kenn koo xamante nii moo ci gën a sopp muy doomi aadama moom alaa kulli haal nee na moom du yam fi ñu ko yamloo faamu dañ kumpa léegi doomi aadama boobu noonu moo dem ba ni lii yàlla bind man faaw ma rax ci lu ci bokkul ngir gën koo mën a ñoŋal ndax jàpp na ni le monde est perfectible damay dugg laboratoire jël ci yooyu yàlla bind amal say modification ay coppite ci lañ jël par exemple benn xeetu jën bu ñu naan saumon jël la boo xam ni bu demee ba mat maanaam toll ci dix-huit mois fukki weer ak juróom-ñett du weesu trente-trois am aussi du romb un kilo trois noonu la ko yàlla bindee léegi doomi aadama ci sobam fexe na ba mu di modifier xeetu jën bi ca ba muy nekk tu tànk ba ci diiru 18 mois jën bi am taayu 61 centimètres poids am yegg ba 3 lu tax parce que dañoo soppi matériel génétique am ni muy màggee moo tax da ngay gis ñaari xeetu jën yi bii mooy ëpp beneen bi te moonte ñoo maase ñoom ñaar ñëpp fukki weer ak juróom-ñett la am parce que bii poisson naturel la ba la bu buñu raxlu ci bokkul la li lañuy OGM organisme génétiquement modifié nit moy dugg ci laboratoire gis ni li ni ko bindé doyuma damay def samay propre manipulation ngir jox ko benen xar kanam waaye yàlla ci mandom dafa nan tek di seetaan doomi aadama muy def liko ko neex diko xaar nag ca cappaandaw pandoga manam les conséquences pour won ko ni man luma def du hasard donc domi adama mo dem bani nak legui duma yam ci mala yek yenen xet yi fruit ak légumes ni consommer war nañ koy tam modifier ngir mbay mi tam gaaw waye tam mu ñu wàññi coono gi ñu daj ngir sam li nga xamni ñu koy ji ci bir souf ci jël ay entreprise tàmbali ay produit produit yo xamni boy bay mom ngay jëfëndiko soit ay jilay doon wala ay xeetu engrais ngir rendement mbay bi gëna a mucc genre fruits ak légumes yi boy xol moy gëna très gëna taru ci bëtt waye xamal ni fruits ak légumes bobé dañoo modifier manam dañoo ko yalla sont mën ko consommer ni produit amul vitamine ci sa yaram au contraire daf lay lor. dañ ci ñëw après alors que amna benen fruit ak légume bo xamné naturellement lañ ko bayyi mën na tuuti baña frais gaaw fekk li ci nekk ci ay apport nutritionnel ndariñ bi muy def sa yaram foko na tawé parce que amul dara lu ko rax ay produit naturel la fa yalla wax nañ leen sang ni doomi adama bés bu sobee buy dugg ci programme yalla suñu borom danaan tekk di ko seetaan ba noppi jox ko une bonne leçon ndax yàlla di juum lu mu def am na lu ko waral ci suñu environnement yàlla dafa def mbindeefam yi di dund sous forme de complémentarité maanaam di mottalante lan moo tax àll bi naat parce que bu weesoo taw beeg yeneen phénomènes yi neefere yi rabu àll yi di tuur dafay am jeexital ci garab yi. dafa bok ci li tax garab yoy di dundu te même rabu all yoy nonu ñoy ñëwaat diko jariño garab yoy tamit di ñu may oxygène ñun doomi adama ñuy noy air pur nga jël suuf si daf ci amay xeetu melentaan bay walax jaan yoo xam daf koy dundal ngir fruit ak légume bo ci bay mu meññi ba ci yenn xéetu ñax yi nekk ci tool yi fay tax suuf si baña bekor ba noppi di protéger wala yeneen garab yi lii la ñuy wooy biodiversité maanaam ni mbindeefu yàlla yi di mottalante ci alam gi léegi nag bu doomi aadama sobee ba tàmbali utiliser ay produits OGM ngir yàkkamtee bay lu bari di produire lu takkoo takku produit OGM yooyu dafay rey mboolem li doon dundal environnement bi walax jaaneek yenn xeetu mellentaan yi daan dundal suuf si produit OGM yi da koy rey

manam ay produits la yoo xamante ni dafay menacer la biodiversité nit doomi adama malay ak garab yi di mottalante loolu lay éliminer donc menace bi gëna reuy tukki ci produits OGM yi moy yàq suñu environnement naturel. benen danger wu produit OGM yi moy suñu wala wër gi yaram té loolu ay études ñoo dëggal en 2015 le ben rapport canadien fësal ni produit OGM yi képp ku koy jëfandikoo jàppal ni feebaru cancer mi ngi la yor ci même année boobu noonu la benn femme baykat porte plainte ben ci entreprise yi koy defar muy Monsanto ndax daf ci amee ben fièvre buñ nan ñu naan lymphome endocrinien benn xeetu cancer la buy atteindre deretu doomu aadama leneen li ñu ko ci ñi yàgg jëfandikoo ay produits OGM moy dañuy am ay problème mu reesal ñi ñuy lekk par exemple loy gëna a produit yi mu yaq sa foie di lay indi lay problème de digestion beneen mbir itam bu ñu ko ci OGM yi te mo gëna graw moy même effet yi muy def ci souf ci manam lu mu fa fekk ci lu koy aar daal di koy fagagal noné itam lay def ci yaramu doomi adama ku ne xamné ni suñu biir yaram dafa may soldat yu xex ak mboolem virus mbaa lu bokkul ci ñun bu ñu lolo tax bëss bu nekk ñuy lekk yeen xéetu microbe yi waaye dar duñu dal soldat nekk suñu bir yaram mo koy def mo ñi ar OGM yi nak ci nuñ ko moñé dafa am ay gènes de résistance ay xéetu soldat yo xamni ni fay galancour lepp lu ko bëgg xañ jamm donc à force nga koy consommer sa yaram dootul mëna résister yeen attaque yi koy songu bëss bu yalla sak noné nak ngay dem ba doon ko xiboon ñaar ñetti fan nga feebar doo xam lu ko waral parce que sa yaram moo dem ba lompoñ ndax produit OGM yi ngay jëfandikoo dafay dem sax bay attaqué wolox jaanu góor yu koy permettre muy sëy di am doom di dal ci kaw buti di njurukaay ku jigéen ki tey tax muy concevoir mën a ëmb di jur léegi nag genre produit yi nga xam ne yeneen réew yi sax tàmbali nañ di ko boycotté ndax xam conséquences yi ci nekk bañ na ba Sénégal le 8 juillet 2009 jamono maître Wad dañoo voté won benn loi ngir bu kenn dugal yi la xéttu produit suñu réew ndax xamoon nañ ne musiba naru laay la. bésu àjjuma 3 juin 2022 Macky Sall làqut ak Abdou Karim Sall di ministre bi wara a suñu environnement bu ngeen fateliko moy ki sàccoon suñu gazelle oryx yi dibiko ko warax ko ci benn ngone juste pour wàlle ni ñii ñoo raw ay vampires ñu daldi di manam maanaam loi 2009 bi done ay OGM yi ne léegi da fay tàmbali utiliser yi les genre produits amul débat yëgaluñu waajuluñ population sénégalaise bi xamal leen li moy lan ku ne joxe ci sa xalaat mu doon un débat national bu sérieux Macky Sall mo tok ci ruqam parce que société étrangère yi defar produit OGM yaa ko pression ndax seeni mbir doxatul en Europe ak les États-Unis légui ñu bëgg a daw làqu ñun suñu réew yi Afrique Macky Sall bok ci président africain yi ko jëk nangu kon premier nonu Sénégal moy Macky Sall yag nañ ko wax té li da ko délu dëggal Macky Sall bëggul Sénégal dafa melni ku ñu yabal pour mu méttital ñu bañu dé légui nak ñett mo am. soit xex ngir ñu baña appliquer loi bi wala ñu nangu te xamni kenn dootul wër ci réew mi wala ku ne boy jënd kër nga gënd Dakar dem ci yeneen région yi wuti terrain wu 500 mètres carrés yoo xamante ni fi da nga koy tabax dëkk fii nga fay bay ay légumes ak fruit yoo xam ne di nga ko mën a dundee yow ak sa njaboot pour mën a sàmm seen yaram parce que fii lañ nar a jëm ku bëgg a sàmm sa yaram ngay produiral sa bopp li ngay dundee ndax le nouvel moo mondial dafa ñëw pour menacer l'humanité faagaagal dundinu doomi aadama te Macky Sall ci taaliba dajaal yooyu noonu la bokk seytaane lay tarbiyu moo tax xeex ko ci jaamu yàlla la bokk bés bu ne ñu répété ko.